nañu leen mbokki Pikine mbokki ginnaaw raay ñu di leen jaajëfal bu baax mbokk yi di leen wax ni ñu ngi fii ci open press Ibou mécanicien mu war a bëre le bi ñu jëm diggante ak ndaanaan muy Petit Baye Fall mu doon koo xamante ne def na lu ne ci wàllu làmb Iba nekk nit loo xamante ne ndaanaan la ci làmb mu ngi def ay preuve dinañ waxtaan ak moom wàccaayu combat bi fan la ci toll ak ay mbokkam nan lañ ko waajee nan la fas yéenee jëm stade Ibou mécanicien ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar. waa bisimilah onze billah inna wàllu yàlla jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Fallou sëñ Abdou Karim Mbacke Makarimul Axlaa yàlla fi yàgg lool te wér ginnaaw bu ñu sant yàlla julli suñu dib ñu sant ñaari waajur di nuyu waa ginnaaw raay di nuyu waa Pikine jëri ñu ngi lay bu baax a baax di nuyu presse bi fi ñëw jaajëf waajee comme ni ma daan waajee rek waaw mais bii nag da cee raw bi dama cee waaj ba feebar sax ni may waxee boo gisee yëngatuma a dog tuuti moo tax moo wàññi mais waaj bu baax a baax ak samay mbokk di ñaan yàlla le jour suñu borom ma ndam da ngaa xam bi mu tiital la ba tax nga entraîné ba dog non non man ku ma xam ñëpp loolu lañ ma xamee dama même bu ma amul combat damay entraîné adversaire mënu maa tiital suñu ñaari bëree chaque jour moo ko suñu ñaari bëree su suñu ñaari bëree ndox tu bëree ñoo bokkul man soo ma songee damay bëre su ma la jàppee damay bëree mais moom benn song rek la am ci làmb muy jël tànk dëj te loolu man mënu ma cee daan ndax li ma def sama tànk yi peut être fa attanul samay tànk seetaan naa ko stade Iba Mar mu dóor mbër mu daan waaw mën na nekk parce que làmb la rek man mii mu naa ko dóor mu daanu combat bi barki yàlla naa ko dóor mu daanu billaahi walaay taala xam naa ko baax a baax moo xam ci mën na bëre champion la xam nga Petit Baye Fall man maa ko laajal sama bopp xam nga dama laajal ko sama bopp parce que pour nga doon ndaanaan foog nga daan ndaanaan te Petit Baye Fall xam naa ne ndaanaan la foo am sama dugub daal dañ koy delloo loolu moo tax ma ne Matar Ndiaye na ma ko jox sama sama ménagère maa ngi ko nuyu bu baax kon su ma déggee wax ji yaa ko laaj maa ko laaj maa ko jël combat bi sa combat sama combat la maa ko jëlal sama bopp kenn laajuma ci kenn ci lu may lu may jox man maa ko jëlal sama bopp en en tout cas waa Idrissa Fall Balde di entraîné di xaar bis bi ñëw suñu borom may ma ndam gis nañ bi nga ñëwee da ngaa favoriser takk gant bi combat bi da nga cee fas yéene xeex wala da fas yéene wane si loolu moo lay wane dama kaa war a dóor mu daanu ndax bëri la ma ñëpp xamee te maa war a xeex nag pour que sénégalais xam ni man du ma ragal ginnaaw a laa dëkk bëri rek xeex non nga ne boo xeexee xeexee fekk fa lu oos non waaw mooy mais lu oos la ñu wër lamb léegi dara amatul lu yomb ndax dégg ndax ki ki nga jël avance am dafay dem wàcc ay mbokkam yow nga dem wàcc say loo mënta def pour nga am ndam rek man lu ma lamb ji jare pour ma am ndam rek dama koy def waaw pour ba du ma tëdd sax di ko xalaat wallaahi azim maa la ko wax fi billaa wala du ma tëdd sax sama xel di nekk ci moom comme comme ñiy seenaan ay combat mbërëg ay ay ay boyam gi nga moom li muy wax noonu ay boyam ñi ñiy ci moom di ko wax ñoom ñoo ñëw ci man di ma wax te saa yu ma envoyé ay photom la ndax ñoru la non non. war ñor ndax booy ma parce que boo gisee ma ne la ñoru ma nekkul adversaire bu ma tiital ma xam naa ko bu baax a baax balaa nga koy xam arbitre bi la mu sumee ko mu sumee ko da ngay xam ne liggéey sax du benn. incha allah rabi lan la gën a xeex wala bëre. songu moom lépp la mënee. mën na xeex mën na bëre mun na songu man tamit maa ngi jàng xeex maa ngi jàng bëre maa ngi jàng songu. waaw moom du gis ni tey ci open press bi Iba mécanicien dafa favoriser trop wàllu mystique combat bi mystique da koy daan non man moom gars yi may jox rek may laal gisoo ma ma tooy rek gars yi may sang rek may sang man entraînement la man maa ngi ay am combat may sang ci affaire yi nii man dem lamb ba sama lamb def une semaine ba commencé que favoriser wu ko woon xaw ma ko sax ki doomu lébu waaw doomu doomu doomu séeréer la doomu séeréer du lébu séeréer la rek aja may kooku mënu maa waaw waaw Iba Iba yow yaa waxal sa bopp ne yow yaa laaj Petit Baye laaj nga ko garaaw puisque dafa taxaw 3 ans 4 ans 5 kenn mënu koo yëngal mu jël zone technique à domicile zone technique da ko fekk ba biir tënge trompé ko daan ko loolu moo ko merloo instant bi dafa ñëg mer boobu kum ko sippi moom lay wër yow nga ne jox leen ma ko instant bi risque bi nga jël est-ce que xam nga ko. non jëluma risque. risque la. war naa du risque. Petit Baye Fall dafa garaaw. mën a bëre dafa mën a xeex. Petit Baye Fall mën a bëre mën a xeex bu ñëwee fekk fi lu wow bu ñëwee fekk fi lu wow koŋ. koŋ lu wow koŋ la fi fekk si kattan suñu borom. Euh, Iba confiance bi ngay dégager gaa dèjà gaa yi ñëw nañu 100 pour cent Pikine bi 100 pour raay bi ñëpp ñëw nañu. écurie Falaye Baldé écurie Texas euh, gaa yëpp a teew ñëw pour pousser la à la victoire mais jour jour ji gars yi bu ñu ñëwee ci ginnaaw la ñuy taxaw barrière dañ koy tëj yow ak Petit Baye Fall kese ci biir muy grand combat mu loo xam ne loo ci def day siiw boo daanee day siiw boo daanoo day siiw victoire victoire ci Petit Baye Fall fan la la mën a yóbbu. man bëri maa ngi nekkul maa ngi soog a bëre grand combat ma sama troisième combat arène grand combat kon nekkul voilà kon nekkul maa ngi soog a bëre grand combat grand combat miin naa ko gérer naa ko te mbapat naa tamit foo naa ci làmb. tarbiwu naa làmb ñam naa defet ñam naa victoire bu ci nekk xam naa li muy saf làmb bu nekk xam naa lu ma jaral làmb ji ni ma jaralee làmb bu su ko jaral ci làmb mais nekkul Petit Baye Fall moo tax ma wax loolu boo gisee kii di wax loolu victoire fi moo tax may liggéey li ma a liggéey li moo tax may liggéey li may liggéey nii la la daanu dem daan daanu dem daanu toog waaw daan dem daan dem daanu saar waaw loolu mooy làmb fan nga ci tool. ci wàllu mobilisation tey sax euh, dañoo jàpp programme bi mais programme bi dafa xaw a am benn écart tuuti parce que Manko day bëri day day day fubal tey loolu moo tax sax mobilisation bi ñu waaw. Manko day fubal tey Jokko day fubal tey fa lañ ko defee sax euh, centre commercial ba ñu xuppeesee ñoo xam ne foofu gars yi nekk stade ñu ne nañ defee fii mais gars yi ñu ci waaj monsieur le maire xam nga ñu ngi koy woo bu baax a baax a dañoo bëgg mu jënd ci comprendre nga jox booy parce que am na ci ay tuutànk yi fi nekk yoo xamante ay xale lañ nañ dem stade seen bër ñu ñaan bonne volonté yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp xeebuñu dërëm xeebuñu juróom xeebuñu ñaar fukk na ñëpp ñëw jàpp ci combat bi jënd ci biir téere yi kaar yi ñu dem defaral Petit Baye Fall man je pense que xanaa damay dellu ñaaxaat la population de Guinaw Rails au nom du maire de la commune monsieur Valdiodio Ndiaye ndax yaakaar naa ne euh, ki nga xam ne moo am combat bu jugee képp kuy doomu Guinaw war nga mën a jóg ndax bëri na fi ay moromu mbërëm yoo xam ne ku ci am combat moom moo lay yóbbu entraînement di ci def xaalisam ñoom ñëpp la majeure partie ku ci am combat booy dem arène moom mooy taal otom yóbbula la kon yaakaar naa ne tey ginnaaw raay ñëpp war a jóg à notre niveau la commune yaakaar naa ne olof moo ne euh, ku la jox añ bu la digee reer nga war koo mën a gëm ñëw na seet si ñu waxtaan nañ planifié nañ tey la maire en personne moo waroon présider programme am bi mais dafa xaw a surchargé de trop moo tax mu délégué ma en tant que chef de cabinet ak délégation bi taxawoon fii ñoom madame le maire Khadiyama Asi ana Asi Dieng sax ñoom ñëpp ñu ñëw pour accompagner Iba mais au-delà de l'accompagnement ñu soutenir ko kon je lance un appel solennel au nom du maire à la population, particulièrement aux jeunes. Samedi la n'est-ce pas Samedi waay incha allah ñëpp ànd mobiliser wu teel a dem stade feesal ko suñu mbër mi bëree daan indil ñu ndam li ñu feete ko fii. Euh, monsieur le maire la nar a jëndal Iba. waaw li ma la mën a confirmer daal mooy de toute façon comme man ndaw laa daf ma yónni man la ko booleel lépp loo xamante ne nii mën nañ ko. wala combat bi laaj na ko wala ginnaaw raay ndamu ginnaaw raay laaj na ko. Hmm. dinañ ci dem ba jusqu'à la limite de nos moyens. loolu moom je vous le je vous je vous le jure et damay damay damay beral waa Pikine parce que su ma xewlee xewuñu ma benn yoon waa Bopp Coor boo déggee Bopp Coor boo déggee ab Diouf mi ngi foofu Pikine Dakar mi ngi foofu Ndiassé mi ngi foofu Lamine Tambidou tey bu comprendre nga gis nga billaay dañuy bàyyi seen yëpp bàyyi seen yitte yëpp te man bu naa ne li man sax man defaguma ko si ñoom comprendre nga waaw Abdou Diouf a ngi nii gars yi nee na ñoo leen waa ginnaaw raay bu di waa Pikine aja di woowaat di woowaat waa ginnaaw waaw garage yi garage mécanicien yi nekk Pikine yëpp maa ngi leen woo sama dëkk waa Ndande maa ngi leen woo bu baax a baax di woo Papa Cheikh di woo ah, maa ngi woo ñëpp baay xol bi fa tooy instant xol bi dafa fees jili maa ngi leen nuyu yow doomu ginnaaw raay nga ngi nuyu Seydina presse bi fi teew ñëpp du transport du dara ngeen tagg seen unité yëpp ñëw ñu ngi gis liggéey bi yàlla na suñu borom def jàmm maa ngi nuyu sama waa bu baax a baax gis naa coono yi waa ko ñoom fili dama ndox mi def samay bagage fa laay takkee fa jóge léegi léegi te duñu onku duñu def dara comprendre nga maa ngi woo waa Gambie bu baax a baax ah du nuyu sama du nuyu sama sama Diop Moussa a Bakhe sama ceddo yi maa ngi leen nuyu bu baax a baax ah sant naa gars gërëm naa leen su ma limee dama juum Amet maa ngi koy maa ngi koy victoire bi nag dama koy maye waa victoire bi Demba laa koy dem ci lamb di may victoire bi Demba laa koy may Demba ana Demba Demba laa may victoire la mais dafa dagg liggéey léppam fu ma jëm mooy moom maa ngi moomay ànd muy dawal am ma fayam maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di sant waa garage di waa Pikine bu baax a baax a baax waa Télé Karo maa ngi leen di woo bu baax a baax jërëjëf Serigne